Hello, everybody. This Ibu at African Caribbean Fine Foods. If we say stew kong or chui kong, chanjine chui kong mai, bugun kong bu am suf, bugun kong bu kong bu hamne ne xamuñ kañ lañ ko liggéey ñun dañoo defar suñu un kong. i am the master chef Ibu ture. seen xarit waaye jël koŋ bi jël ko lakkal ko suma bopp fraîche ma ko jënd fraîche lakkal ko fraîche te dinañ koy am Tuesday muy talaata ak àjjuma lu mel ni lundi dinañ door di am ci benn ci ni kong you wanna taste that fresh and a nice smoked catfish, Kainga City African Caribbean on 2105 Campbellton Road, Atlanta, Georgia. Phone number to call and make this special order is 404 755 9444. Only in African Caribbean fine foods. We're going to provide you a new menu every day. If you miss it, you miss a lot. What's name?